chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm dal te leen jàmm ci li gën a fës yéete yëglekaay yi ñu commencé ko ci ni moom laskanu Sénégal gi nekkee yéenekaay bi ne dund gi amul nu fa chéréwul tax na nguurug Sénégal gi bëgg ci indi solution président Macky Sall woolu bépp association de consommateurs bëgg waxtaan ak ñoom saa su nekk nag ci cherté prix denrées alimentaires yi en tout cas lu tolloog de consommateurs moom la président Macky Sall tudd yéenekaay ci ni moom la nguurug Sénégal gi am ci yokkute gi nga xamante ni moo nekk ci marché yeeg boutique yi yéenekaay bi dalal Mamadou Lamine Diallo muy yàq lu mel ne xeme nguurug Sénégal gi rawatina président Macky te koy xamal ni xawma kan lay nax waaye munta nax sénégalais yi moom président Macky Sall bu fekkee ne dafay nelaw bu yóbba mu teel a yeewu lii mu wax ne dafay wàññi prix denrées alimentaires yi ci na mu gën a gaawee loolu moom ci boppam sax xam na ne mënul nekk président Macky Sall laa la wax bu fekkoon ne dañoo arrière ba 2012 sax mayaat ko sens ngir mu liggéey réew mii munta wàññi prix denrées ñëw ci dooleel suñu koom-koom jàppale askan bii ngir ñu mën a dund dund gu ñoŋ ba noppi ne daal wàññi prix denrée yii moom président Macky Sall xam na ne sax li ni mel mënul nekk moom kay fi mu nii moo coalition Benno Bokk Yaakaar li ñu war a def moo di accepter seen échec bi nga xamante ni def nañ ko ci wàllu politique bañ leen joxee réew mi ba léegi si dara doxul Mamadou Lamine Diallo yëmul ci loolu de ndaxte yàkk na lu mel ne xamee tamit Amadou Ba ko waral moo Ba njaak ñoom ñooy njaak Sénégal gii bu ñu demee ba état bi amul benn dërëm bu mu jàppalee askanam nañ jàpp ne ñoom ñaar ñii ñooy responsable yi léegi fa yéene kay ubbi xët bu yaatu ci waxtaan wi nga xamante ni moo séqoon président Macky Sall ak ñuy yëngatu ci wàllu ni moom la réew mi nekkee tey xam le ne léene da rafetlu naa ko moom loo xamante ni président Macky Sall def na ko mooy woo gi mu woo bépp responsable ci benn rencontre ñu waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni moom la suñu marché bi nekkee a cher rafetlu naa ko yaakaar gi ma am nag mu di am na yenn mesure yoo xamante ni nguur gi dana ko jël bés bu ko jëlee dina am nag impact bu baax ci suñu koom-koom gi surtout nag bu jëlee lu tolloog 1000 jeunes wàccee ko ci terrain bii ngir ñuy def contrôle bi su boobaa nag dina am impact bu baax te askan bi dinañ ci gis seen bopp moom Alla Dieng ci loolu de ndaxte mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne président Macky nag dafa war a xam ne situation bii dépendrewul ci boppam dépendrewul ci suñu réew waaye nag dafa nekk situation dundee waaw na ko commencé ci boppam moom président Macky Sall kay ne commencé di yeewu daal ndékkee café wala sax mu naan fonde su boobaa ñu xool ne situation am na critique yéene ne xaw lu changé wul waaye suñu gouvernement bu bees bii moom changé na yéene bi nag ci fukki weer ak juróom yi nga xamante ni moo des ci présidentielle atum 2024 yi président Macky Sall moom tànn na Amadou Ba lépp ngir essayer mu doxal nekk plan B am lii moo tax yéen kaay ne ku wax lii wax lee sunu tali bii tamit accident yi mu ngi mel ne tulleeg male nit ñi di dee comme weñ laa la wax ci kaw tali bii yéen kaay bi ne xoolal rek ci benn journée fukki nit ak juróom benn ñàkk nañ ci seen bakkan ci kaw tali bi am na ci benn accident boo xamante ni mu ngi ci doonu Sanc Malem ca doonu Tambacounda am na 9 décès ak 5 blessés noonu la beneen accident amee tamit ci tali Mbuur bii ba yóbbu lu toll ak juróom-ñaari bakkanu doomi Aadama en tout cas ak lu mën di xew ji seetlu nañ accident yi ni mu bare yéen kaay bi desaat ci premier xamante ni commencé nañ fa seetlu nag mbir yu doy waa ko wax ay lobbying yoo xamante ni ñoo ci yenn ci ay poste DG ay corruption ci budget ba ci AIBD yéenekaay bi def ci taxaw seetlu tey xam ne sunu gouvernement bu bees bi nag bu nu moytul muy gën a ci gouvernement yi fi jaar en tout cas ci diwaanu moom président Ousmane Sonko dàq na ca biir mairie ba lu tolloog 145 yoo xamal ne ñoom ñëpp nag maire bi avertir na leen le premier octobre ñu jël seen i génn ca biir mairie ba source a moom def taxaw seetlu ci dàq gi nga ci biir yéenekaay bi de gis nga Benno Bokk Yaakaar defante gi ñuy defante Mimi Touré amul benn njariñ dèjà ñoom coalition bi li ñu bëgg mënul nekk ndax li ñu bëgg moo di nangu mandaaw Mimi Touré bii ca biir assemblée nationale te ñoo ngi bëgg a nag ci article bu constitution bi waaye nag li tax loolu mënul nekk moo di Mimi Touré ba léegi si ni démissionné wul ci Benno Bokk Yaakaar li moo tax mandaawu député bii kenn mënu ko foqati ci loxoom Walf Quotidien menaces yi xuppaate yi nga xamante ni mu ngi ci kaw Mimi Touré de ji moom la ëtt waxtaanee ni en tout cas moom Aminata Touré lii ca biir assemblée nationale du ko foowee Doudou Wade moom mel félicité Mimi Touré ci biir yéenekaay bi l'exclusif yéenekaay moom dem ba diwaanu Tivaouane yéenekaay bi di liñ ben ville bi di Tivaouane nga xam ne Diop moo ko géré en moom Diop jël na ay tuuma yu diis daat koy teg ex ba fa nekkoon te moo di Mamadou Diagne ci Mbeng maanaam ay mbiru emploi fictif scandale foncier lotissement irrégulier absence de passation de service ne yénn ci ay accusation yi nga xamante ni Diop si def na ko de dëgg la waaye nag moom maire bi ci boppam moo war a ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale muy indi délégation ca biir mairie ba jàmbar la nga xamante ni moo fa nekk moom représentant Pastef bii nag di xam ne ci biir yéenekaay bi de moom Diop si nag dafa war a def attention ndax lii muy tuumal jàng ci mbeng mën nañ ko koo tuumal ëllëg ndax dèjà moom na leer relation yenn ci ay yoo xamante ni ñoom ci biir bi di liggéey te jëflante na ko leeral depuis mois de février lañ ko mu toog ba jamono ji soog a tuumaal maire bi fi nekkoon lii tamit lu jara la la libération bi dañu xamal ne gis nga ñi doon wax ne dafa xaru waaye nag takk der yii dafa am lu ñuy njort ci biir xaru gi te dèjà jàpp nañu beneen suspect boo xamante ni mu ngi en garde à vue bi dañu xamal ne après jëkkëru Nafisatu Jeeju am na keneen koo xamante ni jege woon na lool Nafisatu jàpp nañ ko jamono ji autopsie bi nag fi mu nii dëggal Kaliphone bi nga xamante ni moom la bi nga xamante ni na mu am na deuxième plainte ca biir section de recherche moom ak ngi ci bannière Yewwi bi waxuma la sax dafa déposé plainte waaye dafa constitué wu partie civile fas yéene jàkkaarloo bi Kaliphone mi des ci biir kaso bi <laughs> waaye waaw li ma waxoon rek siiw di jàmmi borom yàlla yàlla def jàmm te dolli jàmm ci réew mi ñu yendoog jàmm bu suba ak jàmm incha allah